il peut remporter cette élection non xaw ma xam nga remporter ma ne je ba pare na nga surveiller yeneen ñaari candidat xam nga ah, yaa wax ma wax la ci élection yi. Mhm. na nga surveiller bu baax Déthié Fall. Déthié may wax ni dina jaaxal na ah bu baax. yan yi muy def moom ak liggéey bi muy def sur le terrain. surveiller bu baax Déthié Fall. Boun Abdallah Dionne na nga ko surveiller bu baax. non Boun Abdallah Dionne Sané non non non dama lay wax dama lay wax non non dama lay wax na nga ko si ñaari ñooñu surveiller leen bu baax Boun Abdallah Dionne ak Déthié Fall ça veut dire que ñoom ils sont candidats ba pare Déthié Fall li tax kaam grave li tax nga war ko surveiller bu baax moom laa lay wax li ma gëm sax à la fin des fins boo moytuwul ba fa muy mujjee Pastef Déthié Fall lay yàqal affaire yi mooy nekk candidat wu sama gis-gis man parce que gisuma ku mën a nekk Pastef koo xam ne jàpp naa ni ci configuration bi nan la bàyyi nga jàll. pourquoi. yow nag xam nga des fois aussi da nga may poser question yu metti quoi. yooyu <laughs> <laughs> nga may rek. dama bëgg nga wax mais li ma bëgg lay wax rek. mais mais Déthié Fall képp kuy analyser élection bi te surveiller ko mooy xamoo xamoo li xew bu Abdoulaye Dione ku ñu war a surveiller la. parce que mi ngi liggéey non mi ngi liggéey bu baax a baax a baax te Benno Bokk Yaakaar faay yu bari yu ci am ñu ci bari ñu ngi nekk tax kaw yaakaar ne ñu yaakaar ne fa lañ bokk fekk ci bu bunu Abdalaa Joon lañ bokk loolu si mu wax la ko nga xam ko te ñoo ñu ay leader yu yor ay base yu wóor donc mais fan yooyu annoncé nañ fi plusieurs démantèlements euh, de ces responsables yooyu day am c'est mais élection yu yu jaxasoo lañ jëm fi mu nii yu doy waar yu doy waar xam nga maa la wax naan la décembre su ma ñëwee dinaa la wax ba fi ma toog nii amaguma visibilité ndax y de des candidats qui montent. comme Déthié Fall c'est un monte. Mm-hmm. Boun Dionne c'est un candidat monte.